doon man la mm-hmm. duma ca dem <laughs> duma ca dem mm-hmm. parce que euh, dafa am loo xam ni mm-hmm. dem di ko fekki naar dafa saay-saay am na naar yoo xam ne dañu saay-saay parce que du ñu jëlee fii sénégalais yóbbu ko foofu ci noonu su ñu ne rafet na rek wala jonga mën a rek ñu jéem ci dara mm-hmm. am na loo xam ne jaru ko mm-hmm. da ngay toog liggéey mm-hmm. doyloo yàlla yàlla ànd ak yow nga am li nga bëgg mais kanta nga dem nag topp ay naar wala nga topp ay sénégalais wala nga topp ay malien ba jëlee fa am ba ñëw léegi doon uuti li nga doon uuti jaru ko li nga doon uuti itam Euh, ak li nga am du benn. kon nag li gën rek mooy moytu. kenn ku nekk na moytu. gis nga nit. dafa am dignité. nit dafa am dignité. dignité boobule. waxtu woo ko dindee ci sa bopp. deseetoo dara. waxtu woo dindee dignité bi sa bopp. deseetoo dara. donc kon dignité boobu nga xam ne nit ki am na ko. personnalité bi nga xam ne nit ki am na ko mais bu ko indigné bu mu ko dindi mukk ci àdduna parce que xaalis jaru ko xaalis jaru ko te gis nga euh, da nga dem topp nit mu jël alal jox la lam bëgg mu am ko ci yow nga defee ne fa lay yem yàlla indi ëmb dëgg la indi ëmb nag aha jeex na. Mm-hmm. léegi ki ki nga xam ne dafa defe miis. Mm-hmm. yàlla dogal mu ëmb ca. Mm-hmm. léegi ba ci ëmb ba amee. léegi ana miis ba. anamu. du ca du ca amul amul njëriñ. amul njëriñ nit dafa war a seet li mu war a dugg. ak lu mu warul dugg. loo war a dugg nga dugg ca. loo warta dugg nga bàyyi ko. loolu mooy nit. waaye rek euh, dañuy def Miss Sénégal Miss Mauritanie Miss Mali Miss Nangam nga ne danaa dem bokk mais kaay pour nga doon Miss ah du doon caaxaan mm-hmm. pour nga doon miis da ngay nangu dara xanaa xamoo bari na kuñ ne kii Miss la mm-hmm. am na ñu ko dàq. Mm-hmm. dëgg la ña ko dàq dañoo lànk lam bëgg. dañ ko lànk. mais bëri na naan mis la. wallaahi ñu ñu bàyyee ko dàq. dëgg waaye moom dafa nangu ak ak mbon. nangu ak caay-caay. nangu ak lu kenn xamul. ñu jox ko ko. ñeeko ko lànk ñu xañ leen ko. senegal ak benn réew a ci yam lépp loo fi uut. da nangoo joxe sa bopp. ñu nangu la ko jox nga lànk ne doo joxe sa bopp ñu xañ la ko jox ko ku ko nangu. loolu moom si fu ne la. ci njàngum école meek ci lépp daal. waaw léegi nag soo ko bañee. doo dem dañ lay xañ. mais ñu xañ la nga dem ak sa dignité. dem ak sa personalité moo gën. moo gën fuuf. ti am na loo xam ne bu fekkee ne dangaa nangu ñu may la ko. ñu jox la ko waaye nañ la ko joxee baaxul bés boo xëyee ci liggéey boobu bés boo ci xëyee rek yaa ngi fàttale ko nanga ko amee sa fàttaleku ni nga ko amee mu ngi teew nit day am amin bu rafet am amin bu am dignité am amin bu am personnalité dina tax amin booba ko ñëw eh yamal fee et taxawal fee et jaaral ne et taxawal ba ma pare looloo looloo koy may li tax nag du ko may mooy da ngay ragal ne xam na ko ba doo wóolu dal ci kawam mais bu dee amin bu la jeex na jeex na amul leneen da ngay da ngay tranquille donc nañu dal euh, euh, gis nga nit dinaa la wax leen na bëgg Bàmba mhm. nit li mu war a am ëllëg mhm. ak kañ lay dee mhm. xamu ko dëgg la nit lan la war a am ëllëg ak nit kañ lay dee xamu ko dangay dox rek ba suuf sàngam ba yegg suuf sàngam rek nga da ngay xëy am am bam yàgg nga ñàkk doxalinu yàlla la. kon donc yow awal ca yoon wa nga war a aw doxal li nga war a dox di bàyyi yàlla li ci des. waaw ah, oustaz est-ce que lii di miis tamit l'islam bàyyi woon na xel ci araam geeg dagan gi est-ce que l'islam indi na ko. mais miis euh, xam nga miis. ay ay ay caaxaan la rek. parce que jigéen. génn solo. Mm-hmm. wane ba ñu ne ko yaa fi gën a rafet. Mm-hmm. loolu amul fenn loolu bakken rek ko ko indi tubaab bee ko indi ñu daal di adopté wu ci tubaab bi mais li charia indi mooy jigéen daal na mel na mu war a mel de euh, toog ci këram ba nga xam ne ku ñëw fekk ko fa waaye jigéen juy taxawaalu jigéen juy def miis jigéen juy def nangam loolu affaire tubaab bi la mais du diini du diini tubaab la tubaab nag lépp lu mu def soo ko seetee ña cay bokk ñaare duñ doon ay tubaab boo ko seetee ña cay bokk ñaare duñ doon ay tubaab ay nit parce que xam ne ni nit ku ñuul dangay ngay da ngay waaru bëgg na xaalis bëgg na yaa yaa siiw bëgg na daraja bëgg na yëkkatiku yooyu yëpp bëgg na ko mais ñoom ñun de gis nga tubaab bu solee solam du ñaaw ci yow mm-hmm. parce que parce que colam la mm-hmm. mais nit ku ñuul bu solee solu tubaab du rafet ci yow wallaay dëgg la mm-hmm. kon ku ne na yem ci aw wàllam rek ne nit ku ñuul yem ci wàllam nit ku weex yem ci wàllam su ko defee nag jàmm waaye nga nga nga nga eh, nu mu tudd nga jël cër boo xam ne du sa cër daf lay gaañ. daf lay gaañ. ba tey danañ la mën a plaider. kooku dara nekku ci danañ la plaider. parce que buñ la plaider wul nga dee ci kaso bi. dëgg la waaw. da ngay sonni mais bëri na bëri na ku ut avocat. ti la mu nekk mais baaxul. baaxul. mais nag bëgg na cee génn. waaye. bañoon koo def. nekkoon ci mbaax. moo gën loolu. soo demee nag ba dugg ci. la ngay def da ngay wut avocat. Hmm. mu laayil la ñu bàyyi la nga génn waaye boo génnee nag ñu seetaan la ba xam nooy def ah. maire la deuxième chose. ah ndax da ngay bàyyi li nga doon def wala boog dangay def li nga doon def hmm. da ngay bàyyi li nga doon def wala da ngay continuer li nga doon def danañ la plaider danañ la bàyyi léegi nag dañ la seetaan hmm. suñ la seetaanee nga bàyyi la nga doon def. wuut yoonu mbaax ba tey kenn baaxagul na ba tey kenn baaxagul ñu ngi ci ihdina siraatal mustaqima rek ci ngay sax ba dee du tax nga am ko ihdina siraatal mustaqima rek ihdina siraatal mustaqima rek ba nga xëy dee waa bu rabbaka xataa yaatiyaka al yaqin soo dee nag su la yàlla na yoon wi nga awoon baax na alhamdulillah su ne la yoon wa nga awoon baaxul nga yaakaar ko alhamdulillah loolu rek mooy àdduna su ko defee euh, tënku ci mbaaxu yàlla tënku ci ndigalu yàlla moo gën la ci des nit ñi dañoo xamatul fu ñu jëm dañoo tërërëri maa la ko wax de nit ñi xamuñu fu ñu jëm de dañoo màmm nit nag bu demee ba xamatul fu mu jëm di tërërëri da koy seetaan mais da nga koy seetaan ah. am na loo xam ne eh, bu bu ko nit ki xamul xamu ko mais bu ko xamee xam na ko mais yow yaa gën a xam ne ndaw si li muy dugg baaxul ñu koy organiser li ñuy organiser baaxul li ñuy def dara baaxu ci ba pare ci ñu ngi koy def dañuy nëbb nit ñi la ca biir di génne li ci biti mais ku xamoon la ca biir doo ci dugg doo ci dugg mukk mais dañ la koy nëbb ba nga dugg ba ca biir ñu doog koo génne affaire la yoo xam ne il faut rek il faut rek ñu nekk nit ñu nitee di bëgg lu baax di bàyyi lu bon loolu moo ñuy arrangé. Mm. mais daal gannaaw amuma euh, dama sonn mm. dama jaaxle dama amul fu ma jëm. Mm. et loolu. Mm-hmm. mais ñëpp a yem. Mm-hmm. xanaa xamuloo ne. Mm-hmm. bari na nit ñoo xam ne. bari na koo xam ne. yaa ko tani fuuf. ci am amu àdduna. moo gën fuuf ci ngor. dëgg la. moo gën fuuf ci ngor. mais alal du dara. xoolal nga am ñaar fukki junni fan fanweeri junni wala ñeen fukki junni yoo xam ne na nga ko amee baaxul ba muy jeex waxtu woo génne jox bon bi mu jëndi ba ba muy jeex action. dëgg muy jeex action. ni ko amee rek ko amee rek muy dikk. mais su amin ba rafetee. eh laa ilaha illallah boo koy joxe sax dangay ngay yëg ne li may joxe benn affaire la su amin ba ñaawee da ngay naqadi deret dangay ngay mën a kaas da ngay xul pour pour rek nit ñi bañ a yegg sa kaw yooyu yëpp day am c'est ça. amuñu responsabilité benn ñoo yem rek. dañ maa violé ak ki organisé moo gën a xam li ci biir. bàyyi leen waxi caaxaan ñoom jigéen ñi ñoo gën a xam li ci biir góor ñi xam li ci biir ak góor ak jigéen bu ñuy daje te góor li mu yor jigéen xam na ko jigéen li mu yor góor xam na ko kenn ku ne xam nga li sa moroom yor ti ti ti bëgg ba doo ànd saw sa sago ngeen àndandoo wéet ne da ngay def miis mais kan nangu nga nga tëddee ko. dana nangu nga def ko def ko miis. Mhm. mais ka bañ nga tëddee ko du ko nangu. Mhm. bu fekkee ne dañ koo doroge. su toogoon seen kër kenn du ko doroge. su yemoon fa ko yàlla yemloo kenn du ko doroge mm. waqar na fii bu yuutikun na mm. wala tabaraj na tabarajal jaahiliyatil uulee mm. wala tabaraj na tabarajal jaahiliyatil uulee ñu yemoon fa ñu war a yem danañ ko fekk doroge mais ci <laughs> suite ci suite hôtel voilà mais kenn du la doroge mais yow nga dem topp ay neex-neex topp ay laala <laughs> topp ay lii ba ñu waaye yow yaa ko tey nga naan lan léegi yaa oustaz macha allah léegi kon xale bi nga xam ni nag euh, dana ci sosoo wala xale bi nga xam ne sosoo nañ ci waxu waxuñu ci cadre ndaw si waaye duñ ma ne général xale boo xam ni dafa juddoo ci yoon moom ndax atte tamit ku juddoo ci njaaloo la mooy atte gi wala ah, benn la benn la rek benn la rek kii dañ koo violé kii dañ koo njaaloo benn la rek du doonu dara dërëm du ko doonu dërëm waaye duñ ko def dara dara duñ ko ko def ndax moom ba ñuy ba ñuy eh, naan seen yëf juddoogul ba ñuy def seen yëf juddoogul ah bañ defee ba pare ca la doogu juddu ah yoonam nekku ci mais nag du doonu dara du doonu ku góor ki dërëm du ko doon ci moom ku góor kii du ko doon ma wax la leen nag doomu njaalo du doon duñ ko doon kenn du ko doon déedéet doomu njaalo baay bi du ko doon moom it du doon baay bi ñoo yem ñoo yem kenn du doon sa morom mais nag doomu njaalo dana doon ndeyam dana doon mais baayam du ko doon waaw dana doon ni jëkkëram bu dee jigéen la am na jëkkër. Mm-hmm. dana doon jëkkëram. mais paa bii ak sikkimam bii mm-hmm. moog liir bii sequñ dara dafa saay saay. jigéen ñi duma dellu gannaaw mm-hmm. duma dañ ci ma wax ku yemoon sa kër kenn du la violé ku yemoon sa kër kenn du la santas mais lu ñuy wut. yow yaa ngi dem kër. Mm-hmm. bàyyi sa kër bàyyi sa ndey bàyyi say mbokk. Mm-hmm. dem fa bañ santas la. Mm-hmm. ah mais yow buñ la yaa tooñ sa bopp. yow yaa tooñ sa dangaa war a toog kër. wala nga toog sa liggéey boo doon fayeeku dërëm moo gën nga fayeeku ñaar dërëm. bi ci des ñi ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañu am alal. seen alal. lii mu leen xiir mm-hmm. mooy lu bon mm-hmm. xam nga yàlla wax na ne wa qalilun min ibadiya shakur mm-hmm. ñi néew lu néew ci samay jaam ñoo ma sant mais moo ko bëggee noonu am na koo xam ne bu amoon ay milliards yàlla soxlawu ko dëgg la yàlla soxlawu ci dara dara dara su amone ay milliard yàlla soxloko motax fam ko soxla fa la koy def ki fam ko soxla fa la koy def waye bu fekkonte ne yàlla soxla nako ko def fu bon bako ko yàlla soxlawul nak nga organiser ñu am ay organisme yo xamne dañ koy doxal lañ cey def sen alal la cey dem alal je nañ ko amé baxul ñu def ci seen alal li daal mooy jigéen na toog seen kër na toog seen kër na toog seen kër voilà xam nga yàlla bu la mayee teraanga congaan te teraanga jimula may jëmewula ko fu jëm jëmewula ko ci boppam mm-hmm. dala ko jëmee ci seytaane mm-hmm. bul fàtte ne ngi fi bul fàtte ne seytaan yi ngi fi ti dafa am wàll ki alalam jëm foofu mais loo ko mënal kooku digganteem ak boroomam rekk nga koy àtte ndax moom nga koy bàyyi ndaw si nga xam ne itam moom lay jox alal ji waay waay bu yemoon seen kër lii du ko fekk waaye day jaay muus di jël ay téléphone mm-hmm. ay enregistré fii mm-hmm. ay dugg fee ay dugg fële naa ci am million jaru ko mm-hmm. parce que yaa ki nga xam ne yéen lañu ñu jàpp nga wane sa téléphone loo ca def lu mu def nga wane ko mais yaa ngi weeraal sa bopp jigéen ju jarul xam góor gi ànd ak jigéen jooju jaruñoo xam manoo leen a wax a wax ba ñu bàyyi li ñu nekk tara nga ci man parce que tànn nañ ko ba pare tànn nañ ko ba pare waaye ki juum boo ko ne bàyyi rek mu bàyyi boole tuur ay ronkoñam jéggulu boromam kii dafa juum waaye au foyer waayu bu ñu rey waay koy wax ni mais gaayen bi day soob rek ah parce que yii dafa xew quoi mais nañ dox ba ci kanam doxal ba nga gudd fan da nga soo làmbatee dañ laa làmbatee dañ laa dajal mm-hmm. soo manee dañ laa manal mm-hmm. soo talee dañ laa talal mm-hmm. dootoo man dara su boobaa nag yàlla ne la nag naka moo naka moo taloon nga manoon nga yaa ngi doon def léegi wees na naka mu su boobaa nga xool lan mooy doon naka mu hmm. mais yàlla kenn du ko fonto boo ca tolloo defar rek loo juum jéggalu rek loo jum balu rek loolu mooy wareef hmm. waaye kantaa maa ci toll hmm. maa yor sama xaalis ku ñëw boo bëggee ma defanteeg yow lii sama xaalis nii lay demee bés dina ñëw dootoo am dara dara doo ko am dara naa da doo ko am. wax nga ni non non non man du ma ànd ak kenn man ànduma kenn parce que man euh, miis moom d' accord ma ci. Mhm. du lu diine d' accord mm -hmm. mais ànduma mhm. man sama yoon wi ma aw. Mhm. yoonu yàlla la. yoon wu métti la. wu métti. ci ko ku ku ñemewul. moo tax ànduma kenn. waaye yoon wu neex la ci man ak a neex bañu ma kumpa du duma déglu dara dara dara dara dara gis dara dara dara duma du dégg dara dara dara pop mel ni ña ma xam toujours ñu ngi seen téléphone di seet rek maara day taali léeg-léeg nga gis loo naqari léeg nga dégg lu la naqari waaye nag li muy xeex moom dëgg la te ku ànd moom ak ku àndul moom dëgg la te ku bëgg dëgg dana ànd ak moom ci ne lii waruñu ko waaw lii warul mais na na noppal boppam xam nga lu tax réew mi soo amul yenn moyens amuloo yenn kiiraay yi jarul nga fiy jéem dara jarul nga fi jéem dara parce que amoo moyen amoo kiiraay du tee nga jéem nga jéem na jéem na jéem na jéem waaye pour mu am ci ndam dana jafe lool de dana jafe torop ci mii réew réew mi dañoo màmm déggoo li ma la wax dañoo màmm tërërër la ñu def fi mu ne kenn ko ci ne xamatoo looy wax xamatoo looy def xamatoo foo jëm xamatoo ci loo yaa ngi rek di tërërëri mi bu ñëpp normaloon ñëpp réglé ñëpp dal mais ñu man leen wan yoon ñu aw ci yoonu jàll mais daluñu voilà